wax dëgg yàlla li metti na. xale bu jigéen bi iris laalu ko bal lañ ko dóor am na ñu ñun ay bal fetal seen tànk ñi seen loxo ñoom ñoo ñuy protéger amuñu tura tiire suñu kaw. ngir wis ndox mu sedd ci coow li njiitu réew mi dalal ay notable ngor ca palais de la république waxtaan ci coowal suuf si lee xaaj si digg bi. ku nekk jël 3000 mètres carrés commune bi déjà lépp lu fi nekk ci espace ñu xool nan la ñuy régulariser parcelles yooyu stade de Ngor ay titres fonciers la ñu exproprié lañ mais loolu nee na dinañ ko def incha allah lycée bi aussi jox nañu espace déterminé nañ ko dinañ ko jox ba pare tabaxal ñu ko nu mu gën a gaawee ay ndaw lañ woon ñu ñu yónni woon formation boobu nag dañ koy andilaat ñi ko moom ñi ko moom ñoom ñooy apprécier ñu revenir à la sérénité bu dee amee rek yi xam na man moom ban soo ma soo ca Ngor takk der yi di waa gendarmerie ba tey ña ngay may gët mi ngoog fàttaliku kon ginnaaw ay jàmm yenn ci ay mesures yu njiitu réew mi jël tax na ba ñu xëyee tey dem ca Ngor gis nañu ne jàmm dikkaat na fa. heureusement que ñu am dal bi nga xamante ne ñëpp moom la ñu bëggoon eh, situation boobu nga xam ne am na foofu nga xam ne moom mooy Ngor malheureusement eh, situation boo xam ne yegg na ba dégénéré ñu doo a solution doo a mën a indiwaat mbir yi ci li nga xam ne moom mooy dal te mënoon nañu ko éviter parce que bëri na loo xamante ne dox na fi ci diggante bi entre la fête de la nga xam ne nit ñi ngi préparé seen ña ngay xeex ak euh, rayante ak euh, maanaam euh, jaamarloo ak ñi nga xamante ne moom mooy takk der yi démb encore gis nañu ay blessures yoo xamante ne garaaw na lool li nga xam ne également mooy communiqué ministère de l'intérieur bi gis nañu ko souvent yu mel nii fi muy mujjee mooy waxtaan et malheureusement duñu ko commencé dañuy dem ba béy way mbuus ba mu am ay incident am ay conséquences yoo xam ne kenn du xam fu ñu koy natte mu door am beneen bi mu ci tegu moom mooy aujourd'hui c'est le foncier le président moom mooy euh, gendarmerie jël 300 mètres carrés li nga xam ne moom mooy lycée bi jël mètres carrés te localité la boo xam ne ñaar yëpp soxla na ko soxla na gendarmerie parce que amul sécurité ci lu bari soxla na également lycée parce que mënoo am localité bu toll noonu te amul lycée ba askan wi génn di ko jàmbat je pense que loolu ci ambition la bokk ci askan wi. Mmh. léegi nag euh, ni ñu ko waxtaanee ba daal euh, dellu fa yàlla na continuer noonu ci fi nga xam ne moom mooy cadre unitaire enseignant moyen secondaire yu Sénégal yi ak syndicat des enseignants du moyen secondaire du Sénégal ñu gën leen a xam ci SAEMS ak CUSEMS ñoo fas yéene décrété benn fanu gréew ni ki ëllëg ci alxemes gi pour benn fan lu ñuy sàkk mooy mboolem seen accord ñu xaatimoon ak gouvernement bu Sénégal ñu sàmmoon tekk yi les kaddu ci noonu itam dàq ñu benn yoon boycotté évaluation ak examen fin d'année yi nga xam ne léegi ñu tàbbi ci seenuk ndaje ak taskatu xibaar yi Tidiane Diallo Mohamed Diaw ñoo ñu fa mu mel ni kon élément bi jàppandigul waaye mënees na ko commenté Léopold Tamba mu mel ni njàng meeg njàngale mi secteur bi ni mel xawoon na am ak dal ak diira ñi nii waaye tàmbaliwaat nanu lu jëm ci wàllug grève yeeg moo doot de grève yi euh, li ko sabab du leen lu dul accord yi ñu xaatimoon ak ñoom la ñu ne la ñu bëgg gouvernement bu Sénégal respecté ko waa ay accord yu ñu signé woon la ba léegi nag euh, état bi Sénégal ba maanaam deful benn jéego li ci am nag mooy dañoo toll ci instant boo xam ne ne arène politique bi dafa nekk en ébullition ba nga xam ne ne que ñi nga xam ne ne daal warloo nañu dara ak euh, gouvernement bi wala gouvernement bi warloo ak ñoom donc dina am yoo xam ne ne ay xeetu yoo xam ne damal xeef yoo xam ne entre ñaari euh, maanaam surtout ñi nga xam ne moo di enseignants yi ak ñi nga xam ne moo di état bi il revient à l'état maintenant à chaque fois que de besoin saay bu jëlee ay décision mu mun a maanaam euh, wàccoo ak décision yooyu mais à chaque fois su dee noonu la ñii nga xam ne ne ñoo di ñi nga xam ne dañ leen digee ñu topp seen ginnaaw à chaque fois muy métti donc ça veut dire ne qu'il faut que état bi mu am une vois boo xam ne ni li ñuy wax une vois sacrale c'est-à-dire c'est sacré parce que la voix bi nga jël nga wax ba nga dundal nit ñi ay yaakaar ñuy yaakaar ci yow loolu yëpp yàkkeeku parce que tout simplement li nga diggee da nga wàcceewul ak moom. mi ngoog seen ndaje boobu kon Tidiane Diallo moo ñu fa teewaloon euh, ñu dem euh, déglu leen.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 cof yooyu ñuy cof salaire yi bu ñu foogee ne dana tax nit ñi dellu gannaaw déedéet dañu juum. waa CUSEMS ak SEMS pare nañu ngir boycotté examen wu fin yi su fekkente nguur gi respecté wul accords yi ñu xaatim ak ñoom te tamit ñu ngi exiger nguur gi nañu libéré jàngalekat yi ñu téye ci kaso yi ak élèves yi. mi ngoog Fatou Abdou ay weer a ngi nii quoi lu jëm ci wàllug secteur njàng meeg njàngale mi xawoon na am ak dal li ko sababoon sax jëriñ ji déggoon nañ ko mu ne mboolem seen milliards yu bëri euh, dugal nañ ko ci waaye accord ñu xaatim ak jàngalekat yi respecté wuñu ko moo leen yóbbuwaat ci langue gi ngir ñu amal ak grève alors euh, euh, accord yoo xam ne dañu ko war a nag bu ñu ko signé parce que loolu lañ doon wax les accords doivent être quand même euh, balaa ñu koy signé ci li nga xamante ne moom mooy jàmbatu ñi nga xam ne ñoom ñooy kon jàngalekat yi mais beneen boo xamante ne jàngalekat yi souvent dañu koy jàmbat bokk na ci teg loxo bu ñenn ñoo xamante ne dañu bokkoon ci ñoom ñu teg leen loxo ci cadre boo xamante ne du woon seen cadre bu bërëbu liggéeyukaay loolu nag moom munoo ci taxaw ne euh, force dañ leen war a bàyyi te ñoom jàngalekat yi li ñuy wax corporatisme mënuñu ko bañ parce que mhm. fi fi fi lañu ko fekk boo amee sa nawle wala nga am koo xam ne moom nga bokkal bërëbu liggéeyukaay wala bokk ak moom secteur ñu téye ko wala ñu wóolu ko wala ñu teg ko loxo c'est souvent luy luy naqari la luy frustrant la mhm. mais euh, warta mën a yegg ba aujourd'hui euh, li ñu fi defoon ci ay jamono banque loxo génnee xale yi parce que tout simplement mhm. ñenn ci ay jàngalekat yu bokk ci ñoom te na ba ñuy manifester defuñu ko seen bërëbu liggéeykaay mais dañoo demoon ci manifestation politique bu tax ñun teg leen mhm. euh, clémence moom moo ci maanaam pour ñu bàyyi leen beneen bi nag les accords euh, qui sont signés quand même ci war a indi ay solution balaa ñuy dugaat ci année boo xam ne du nekk année scolaire boo xam ne dafay am dal. Mingoog ci jamono jooju Fatou Abdou centre des œuvres universitaires de Dakar daal dinay dalloo syndicat wu yees ñu duppee seen bopp saytu daan nañuy sax faf ne daañu installé ay cellules ci université yu nekk ci Sénégal yëpp en tout cas loolee porte-parole bi di wax mi ngi wuyoo euh, ci turu Saliou Fall ñu teewlu ko. agent COUD yi bari nañ jumtukaay yi ñu doon am war nañ ko mën a yokk lu demee que ni kaar yi juboo nañ ci ak administration bi que dañuy yokk kaar yi ñoom lancé nañ ay marché pour ñu yokk ko loolu ay jafe-jafe yoo xamante ne travailleur dañ koy jànkoon den bu ñu wàccee war ñibbi benn la ci jafe-jafe yi. nekki ni liggéeykat yi moom la ñuy saytu répertorier nañ ci lu bari nag bu ñu paree ci assemblée générale bi beneen activité bu ñuy def mooy un séminaire boo xamante ni dañuy tàggat ñi nga xamante ni ñoo seq bureau bi moo doon lii léegi ñu dañuy tàggat ci négociation syndicale bu boobaa dinañ fa poser problème yëpp yi nga xamante ni moom la kër gi am mais di fàttali rek ni jafe-jafe moom chaque jour bu ñu yeewoo dañuy jàkkaarloog moom moom laa sànq dama ni saytu est venu pour s'occuper des problèmes des travailleurs au quotidien bés par bés. Fall moo doon àddu wax ci turu syndicat boobee euh, di saytu euh, euh, ci ay kàddu yu leer lu may loolu itam dañuy wax ci direction général bu transport terrestre ne ca Louga jëm ci wàllug cadre wu ñuy xeexee lu jëm ci accident yi ne xuus ci dëkk woowule mel ni kon région la bu nga xam ne lan ci wàññi ci ay xeetu accident foo ko takk weesu ko te it victime yi day bari lool tax na itam ñoom boobu lek direction général jël nañu ab cible association auto école ya fa nga xam ne dañoo tënk doon doon benn ngir ñu ànd xool ana yéen yoon lañu ñu mën a jaar ngir accident yi mën a wàññeeku ca Ñàmbur Galaay Silla sunu correspondant ci Louga.